mu ñëw na ci marché bi ñu di ko dalal di ko wax bismillah na dal ak jàmm ndax gis nañ ko ni mu doon liggéeyee depuis que mu nekk ministre de la femme avant muy ñëw agriculture bay ñëw tey jii ci peche bi ñu gis ko ni mu doon jàppale jigéen ñi am ci yërëmande ñu am yaakaar ne comme tey jàppale bi xanaa di defanteeg ñun di waxanteeg ñun lu muy dugg bu boolee ñu ci jàppale ñu ci biir marché bi jàppale bi nag li ñu ci gën a xaar mooy jàppale suñu DG parce que mënuñoo wax du ay acteur rek yu ko mën a yore ndax ku ko fi yore sa bopp nga ko yore mais moom yore na ko ñun gis nañ ci suñu bopp acteurs yi dugg si ci biir marché bi yëpp gis nañ seen bopp ci ni mu yoree marché bi kon ñun dañuy ñaan nañ ko jàppaleel gën ko dooleel mu gën a bëgg yóbbu marché bi fi mu ko bëgg yóbbu mu yeggaleel ko fa ci jàmm ak salaam ñun ñu ja liggéey ci jàmm ak salaam acteurs yi fi nekk yëpp gis si seen bopp ñun daal loolu la ñu bëgg mais bëgguñu suñu marché dem ci yeneen loxo yu dul DG di gërëm tamit ministre bi fi nekkoon muy Omar Gueye ñu jël nañu suñuy dossier mais ñun amaguñu ba léegi aide yi fi de kiy joxe woon président de la république aussi am na ñoo xam ne bénéficier woon nañ ci mais am na ay acteurs yoo xam ne seeni kuréel jotaguñu ci man ñun ñii ci la ñu bokk muy DER bi am na ñu ci jot a am nag ñu di ko gërëm di ko ci sant ndax fédération la bu benn kuréel amee rek mel na ni yeneen kuréel yi ñoom ñoo am mais nag ñu nit ñoo. Ah, bi xam ne sunu euh, ministre bi ñu jox fi ñu toll nii. di bërëm nag ministre bi fi jóge tamit di dal ministre bi fi ñëw ndax ministre bi ñëw kat dañ la bëgg leeral ne la ñun ni acteurs yi marché bi marché bi la ñu am mooy sunu trang mooy suñu bureau ci la ñuy fayee weer ci ñuy fay weer ci ñuy fayeeku sunu weer ci ñuy fay def sunu teranga ci ñuy joxe teranga ci ñuy leble ci ñuy leb kon ñu bëgg yow mi xam yow yaay ministre bi dan laa dan lay ñaan te nag du la teg benn nattu nag du la teg benn coono pour bëgg lépp loo xam ne yaa ngi koy liggéey ñu ànd yow bëgg lépp loo xam yaa ngi koy def ñu ànd see yow ndax ñun xam na ni liggéeykat nga ndax liggéeyoo ci lii kese te gis na nu ngay liggéey feneen fu fii ba tax ñu wóor la jox la bii liggéey kon bëgg na nag comme yow liggéeykat nga ba président Macky Sall jël liggéey jox la ko sa yaakaar si yow jële fi keneen jox la jox la ko ñun nag bëgg na liggéeykat bi fi nekk nga téyal nu ko ja dooleel nu ko ndax ñun gis nañu seen bopp si marché bi